أسير مع الأبرار هي wa rahmatullahi taala wa nañ ak yéen ci seen yu màggal ngeen enquête seen bokk taalibe maam la Ndiaye ba tey maa ngi woon ak yéen ci préparation bi nga xam ne moom la ñuy préparé jëm Tuuba ban anam lañu ñu war a mën a waaje waxoon naa la nga fàggu alal ji lew muy paas bi nga xam ne moom moo lay yóbbu Tuubaa léegi ñëw ci nag ci ginnaaw bi nga xam ne yàlla dogal am nañu paas ban comportement lañ war a mën a am ci yoon ma njëkk ci ñi nga xam ne ñooy chauffeur si wala ñi nga xam ne ñooy wàllu transport bi ñu bàyyi xel bu baax ne ki nga xam ne moom moo woote dimbalante ak yërmande moo tax mu woote kon yow mi nga xam ne yaa yor oto bi tamit dawalal yërmande jooju ginnaaw sax bi nga xamante ne nit ñi ñu ngi sàkku wala yow mi nga xam ne ab taalibe nga da ngay dem Touba gis nga sa men moroom moo xam ne leer na la ne kii yaa ko tane walla moom kat dégg nga ko muy jàmbat paas yëkkatil ci li nga xam ne moom la la yàlla wërsëgale nga dimbali ko bul ko xeeb ndax lépp loo xam ne yaa ngi koy xeeb. am na koo xam ne mi ngi woon sew pour jot ci dont bu dee téeméeri dërëm la nga jaayante ko barke boroom màggal gi nga ne lii kat maa ko yëkkati baaxe ko kenn ci askan wi nga xam ne xañ na dañoo loru te yàlla tax dërëm boobee ngay loolee ngay xeeb day ëllëg mënal na la jural tuyaa ba joo xam ne nii bu la ko sa borom fayal nga naa lii fan laa ko liggéeye woon ndax dara gënut walla dara ëppul yool li nga xam ne lew na la nga yëkkati ca lum tuut tuut ñu ko Sëriñ Tuubaa di waxee dond ab miskit la nga dimmilee ko sa mbokkum taalibe te yàlla tax ëllëg yowmal qiyaama bu tàngaay bu mettee lool nga xam ne danga gis koo xam ne dafay tàng ba ñaq bi dafay ñëw ba ci kostomi tànk yi gis koo xam ne ñaqam ëllëg day ñëw day tàng ba day ñëw ba ci bëti oom yi gis ñoo xam ne ni seenu ñaq day ñëw ba ci seen digg yi gis ñoo xam ne ni seenu ñaq dafay ñëw ba ci seen loos yi gis ñoo xam ne dañuy dem ba lap ci seen biiru ñaq wala iyaasu billah yàlla ci yàlla musal su boobaa tàngaay boobee nga xam ne kenn du am kerlu ñenn ñi dërëm boobee nga jëlan yëkkati woon ko jox ko sa mbokkum julit ngir paasu màggal su boobaa kam naa nekk ker goo xam ne ni moom moo lay keral ba yow yàlla na la musal ci ñaq woowee kon loo mën a dimbalee sa mbokkum jullit ci paas dimbali ko bul ko xeeb dem hatta sax ba ci masque yi nga jël benn masque nga jaayante ko ne lii kat maa ko jaayante ngir jëmmi borom màggal gi jox ko sa mbokkum jullit mu takk ko masque ba seeg mi ngi koy takk ba kere mu koy summi malaaka yi dana ci bindal ay tuyaaba ndax yaa ngi défendre sa mbokkum jullit loolu dañ ci war di bàyyi xel fan jëm tamit bu ñu yóbbu ñuy loxo yi neen suñ ko mënee donte keesu miskit la jënd ko nga yóbbaale ca fa ngay dal su bunte àgg ci fa ngay dal tamit yoon bi am na ñoo ci romb bu bi ci kaname incha allah nañ ci gën a yaatal nga jim leen cee baaxe su ko defee kon loolu ak jàppalante la jikko la boo xam ne ni ku tedd ki xaadim rasul bëggoon na ko wala daan na ko ñaax ñi nga xam ne ñooy jullit ñi bul ne man tiijaan la loolu waruma bul na man xaadir laa loolu waruma bul ne man laayen laa loolu waruma bul ne ñeseen laa Sëriñ Tuubaa ñëpp la jaboote ndax mi ngi wax naan fa kullu wirdin yuridil murida li xadratillaahi walam yaxidaa sawaun intama ilal jinaani aw intama li ahmadi tijaani aw li siwaahuma min al is kulluhum qat ala sawaabi kon ku tedd ki xaadim rasul xaajale dafa ñëw boole ñëpp jullit benn la mën nga nekk murit ki nga xam ne moo nekk tijaan ëpp la tuyaaba fuuf ci màggal ji mën nga nekk murit ki nga xam ne nekk na leneen ëpp la fuuf ci màggal gi mu ngi dépendre rek ci yéene ji ak jëfin bi nga xam ne ni moom la ñuy jëf kon ba tey yaa ngi maam lamp rek jaay ci yóbbalu màggal bi incha allah boo ma toppee dinañ ànd ak yow ci li nga xam ne moo ci des wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa